dafa mel ni tey yow lii yow lañ ko defal yow mi dëkk unité 11 tey jardin mi nekk unité 11 tey euh, lan ban yëg-yëg nga am. Euh, maa ngi lay nuyu di la sant bu baax euh, di sant yàlla di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp jiital ci nuyoo bi monsieur le maire Moussa Sy ak Khadim Gadiaga ak Ndiaga Diop mii ñoom bu ñu waxee rek daanaka man mënatuma wax lu mënatuma leen a dab fenn ndax kenn ku ne da nga ko jox wàccuwaayam. Eh, wax dëgg yàlla man gërëm naa leen sant naa leen xale lañ yoo xamante ne parcelle rek lañu la ñu nooyee unité onze la ñuy nooyee eh, tey lu mel ni tey bu amee ñu bàyyi seen soxla yëpp ñëw fii kii organiser lu mel noonu li ma koy ñaanal mooy yal na ci am ngërëmu suñu borom te dana ko ci bu soobee yàlla li ngeen bëgg it incha allah daañu leen woteel cent pour cent man maa la ko wax bu soobee yàlla parce que Macky Sall la fi ne moo fi ne nit nag bu yàlla dogalee ñu teg ko fa te dogal ba bàyyi ko suñu borom kenn mënu ci dara bu jeexalee ëllëg it keneen mooy ñëw rek waaye kay ñëw it yàlla na mel ni moom rek avancé Sénégal ñun ñoom ñu bokk ndey ak baay xam na réew mi ñoom ñoo ko bokk histoire xaju fi ku ko fi bëgg a indi day këpp ci sa kaw rek mais jàmm rek la nit ñi bëgg jàmm la ñu woote bu woote ba jotee kenn ko ne dem jël kartaam dem sànni ko fa nga war a sànni ñëw toog am yar ak teg jàpp sa jàmbur kontaan naa ndax lii doomu aadama bala ngay am dara da nga am wér-gu-yaram te lii mooy mooy mooy wér gu yaram jël ay docteur ñu waroon a dox ay sant euh, nde euh, kilomètres dégg nga ñu dem faju ji ñu ñëw tegal la ko sa bunt kër tegal la ko sa buntu néeg ne la kaay faju docteur yëpp ñu ngi nii kenn ku ne sawar pour ñu laaj la wax dëgg yàlla loolu sant bu ñu santul yàlla doo doo dootuñ ko dootuñ ko sant kon yéen yàlla defal jàmm aaruñu indi ndoxam jàmm lii ñu euh, xaadim yéene fii nii yàlla at mu ne yàlla na ko gën a man barke bi loolu daal man laa amal lu ma ci lu ma ci sànni fu Moussa wax daanaka sama. plaisir c'est celle de Ndiaga Diop Ndiaga Diop c'est vrai au-delà d'être un homme politique au-delà d'être un homme de communication mais ceci c'est un très grand sportif pour avoir été parmi ces dirigeants qui ont accompagné l'ASC Gouygui au premier sacre en 2019 ici au Parcelles Assainies alors il est délégué à la zone membre très influent au niveau de la zone tey njaga ban yëg-yëg nga am tey tey bi nga xamee ne au niveau de l'unité 11 tey vous avez l'honneur et le privilège d'organiser ces journées médicales gratuites mais aussi don de médicament par Khadim Gadiaga ban yëg-yëg nga ci am waaw euh, grand Aziz euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu internaute euh, ak téléspectateur bu TMS di kontaan loolu si journée tey bi ginnaaw bi ñu gërëme yàlla ba pare gërëm suñu ay waajur dañuy sant son excellence le ministre Amadou Ba ndax euh, tabaarkalla macha allah bi mu ñëwee parcelle ba léegi parcelle am na beneen xar-xaru kanam muy ASC yi comme ni nga ko tuddee léegi muy euh, côté santé muy lu mu mënti doon rek Amadou Ba dugal na loxoom ci biir loola. bu dee nawetaan bi subventionné na ASC yi subventionné na euh, lutte écurie yi subventionné na ñi def taekwondo ak yëpp bu dee côté sport stade baa ngi nii keroog bi coow li bëree. ba bëri fekk président de la bi doon def conseil des ministres délocalisé mu tombeek Dakar bi ko Amadou Ba yéegee dafa wax ak waxtaan ak président président jox ko instruction boobu en tant que ministre des finances mu débloqué 2 milliards pour Stades bu Parcelles Assainies bi kon tey defe naa ni comme ni ko monsieur le maire Moussa Sy waxee waa Parcelles ñooñu ameel fi mu toll nii te bu ñu goree dëgg dëgg dëgg dëgg gëm naa ni ñoom ñëpp dinañu wotee list Benno Bokk Yaakaar Khadim Gadiaga nag dañ koy gërëm di ko sant parce que directeur hôpital Youssou Mbargane xaritam la mu ni ko naka laa jàppale ak si lan laa jàppale mu ni ko conseil euh, consultation médicale gratuite boo ma si jàppale woon si population Parcelles Assainies dina am solo mu débloqué euh, déplacé li nga xam ne si mooy spécialiste yi fi nekk yëpp cardio ngi fii euh, gynéco ngi fii pédiatrie ngi fii benn maanaam daal spécialiste yi yëpp yëpp ñu ngi fi ba pare boole si ay dons de médicament bu ko neexoon nag mu defee ko fële mu dëkk Lac Rose wala mu yóbbu ko mais mu indi unité 11 parce que voilà mu indi ko unité 11 wane ni man unité 11 laa bokk unité 11 laa donc dañ koy gërëm baax di ko sant di nuyu aussi honorable Mbathio Niakhasso parce que bàyyi na yitteem bàyyi léppam daal di ñëw woo wuy si waa unité 11 grand xaadim daal contentement la am di gërëm aussi jeunesse unité 11 yëpp di gërëm femmes yi nekk unité 11 yëpp parce que tey jii kaay ma jiite leen déedéet mais ñëwal nga jiite ñu dafa neex ci te ñoom ñëpp dañoo def en masse ñëw nañu yaa ma doy yow njaga yaa ñu doy ci comité ñu jiital ma te boobu kenn faqatulu ma donc maa ngi leen di gërëm di gërëm grand Aziz di kontaan ci yow parce que wax nga ko léegi dama yëngu si communication tey man su ma bëggee communication ba toll fi ma toll nii c'est grâce à vous grand Aziz parce que yow modèle nga si ñun icône nga si ñun démb dañuy recevoir euh, ASC Manko ASC Guy gi Amadou Ba di leen subventionné Birane li bokku ci bi may présenté Birane Ly ma ne ko man dinaa lottu pour présenter la parce que xaw ma ci yow dara mais grand Aziz Diagne bu fi nekkoon xam na sa palmarès dina mën a wax ci yow grand Aziz merci beaucoup vraiment di nuyu sa caméraman aussi tamit merci jërëjëf merci. merci merci voilà kon nag euh, ñu xool ñu xool maintenant les patients en foyer am seen seen réaction par rapport ak li nga xam ne ni moom moo leen moom moo leen fii moom moo leen fi indi ah. ku ñëwoon pour lan. dama ñëwoon pour set sama yaram. ci grâce euh, ci xaadim Gajaga lim fi def ndax kenn du ko ne guleet ndax xaadim sunu doom la mu juddoo parcelle yaroo parcelle ñu di mamaam depuis ba xaadim nekkee parcelle ba tey wax dëgg yàlla dana sant yàlla julli ci yonante bi da sant sunuy waajur ndax xaadim moom appel rek la wax te ba mu nee waaw ba tey néewul déet ba mu ànd ak Ba tey ba néewul déet ñu ànd ak sunu honorable député Mbathio Diakhaso ndax Mbathio moom luñ ko andi luñ ko yët parce rek jox na ko jigéen ñi luñ ko andi rek jox na ko jigéen ñi ku ci ne yëng na ci sa bopp man bi ma nekkee ci politique ba tey ba gis ci sama bopp grâce Mbathio Ndiakhasso kon nag ku santul yàlla doo sant nit. fekk nag benn soxna soxna si euh, noo tudd. Ndeye Assou Niang maire maire Assou Niang yow sa sant bi naqari la mënoo woon sant Diagne. yee Diagne la. waaw tey da fu fi ñëwoon loo doon say tànk. waa damaa toog fi sama kër a ngi nii. ma gis baas yi ak musique bi. waaw waaye damaa dégg ñu tudd Xaadim Gajaga muy sama doom. ñu tudd Moussa si doon sunu maire de sama doom moom it. waaw ñu kon ñoom leen tuddee rek war naa caa jóg. dëgg looloo may yëkkati may ñëw sax xaw ma lan la fiy def. bi ma ñëwee ba fii ci laa laajte ñun dañuy constaté ah, sama kër a ngi nii maa ngi dëkk ak ñoom. kon da nga damaa ñëwit consultation ñëwit ngir ñaari doom yooyu. de Xaadim Gajaga ak Moussa si bii nga xam ne. tubaar fakal moo ñu nekkoon sunu maire di ñu defal lu ne lu baax ko kenn nu koo fàtte si saawaani loolu mooy sa ñëw tey consultation tey ban ban ban docteur nga seet si tey. waa man kay tànk yi rek laa seet si. ku tànk yi moom laa seet si. Ah, moom nga seet si waaw. ah. bët. Ah, bët yi bët yi mooy métti. waaw ah, fan nga dëkk. Unité 11. Unité 11 nga mm. yow nag soxna si da nga ñëw consultation. pour ñu xool ma sama dama opéré. ah da nga opéré bi waaw dama amee ja dama amee waaw. fan nga dëkk. maa ngi dëkk Cambérène fii taxaw internet. waaw. et El Hadj Birame Seck moo ma woo téléphone. waaw ni ma am na consultation yi ñuy def ci sama koñ bi. waaw. na nga daal di ñëw léegi may itam ma daal di kii sama dëkk noonu la marka nan dem. waaw. lii nag teraanga la ci parcelle. dëgg la. teraanga nag waa parcelle meen nañu ko. le nom. Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye alors da ngeen ñëwoon tey pour participer vraiment ci consultation bi yan yan yan yan yan yan pathologie wala yan euh, moo ngeen fi traité fii consulté. le moment nous on fait la euh, maanaam jël constante yi. lépp ah. après référé leen si médecin yi quoi pour ñu man leen gis. Mhm. mais pour le moment amaguñu benn pathologie boo xamante ni gisagul nañ ko à part triage bi lañ nekk nii quoi pour faciliter médecin yi seen consultation. mais c'est vrai que avec cette file pluie on a vu quand que les gens ñu ngi commencé. waaw waaw waaw ñu ngi fii file bi dafa xaw a doy waar sax mais ça va quand même on va gérer quoi incha allah yàlla baax l'heure waaw eh, may nuyu d'abord waa unité 11 di nuyu bu baax suñu frère suñu xarit Khadim gajaga vraiment kontaan trop ci initiative bi mu jël muy consultation gratuite parce que moom doomu aadama yi mu jël dajale fi tey di leen ku nekk mu lay xoolal sa wér gu rek loolu bu ko ci yàlla fayee da xaw ma pay ba nan lañ koy nan nan la ba nar a toll kon nag mu nekk initiative bu noble ñu koy gërëm di ko sant di wax ne c'est pas une première fois mu nekk ci wetu unité o nekk ci wetu ay dëkkandoom kon nag di rafetlu vraiment initiative bi di ko ñaanal yàlla lépp lu mu ci am comme tiyaaba yàlla na ko yàlla ko fay ko lu ëpp lu lu kawe njortam ci li muy xaar vraiment kontaan nañu trop ci taxawaayam ci engagement am ci wetu population bi. On le sait C'est vrai que la campagne électorale est en de battre son plein. On a eu à relever quand même quelques scènes de violence. Alors, bon appel ngay lancé vraiment citoyens yi Euh, maanaam pour en vue des élections du 31. waaw appel bi ñuy lancé mooy euh, violence moom c'est l'arme des faibles ñi amul argument rek ñoom ñooy créer violence mais ñun ñi nga xam ne dañoo am suñu argument am suñu programme am suñu bilan am suñuy perspective ñun yaakaar naa du ñu def violence ñi nga xam ne tamit ñu ñooy def violence aussi ñu ngi leen di appeler quand même ñu ñu arrêter parce que violence amul njëriñ ku ci nekk na nga téye sa carte le 31 nga dox ndànk dem voter nga xaar sa résultat loolu la ñuy ñaan parce que Sénégal c'est un pays de démocratie c'est un pays de liberté ku ci nekk am nga droit far fa la neex ku ci nekk am nga droit àndal ka la neex ñu bàyyi ba jour élection yi ku ci nekk jël sa carte rek ànd ak ñi ngay àndal nga dem voter librement moo gën violence yu ñuy gis jaru ko amul solo te du jur dara loo xam te ñun ñëpp fii Sénégal ku nekk rek ñun ñëpp ay frère lañu ak ay sœur lañu ay mbokk lañu élection yi day passé ñun ñooy bokk suñu Sénégal te Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar encore may appeler à au calme à la raison que ne xam ne élection yi c'est dans une semaine incha allah te dañu li ñu tàmm Sénégal bu ñu élection yi bu ñu xëyee suba ku ne dem liggéey loolu incha allah dinañ ko defaat voilà may appeler vraiment au calme. da nga ñëwoon tey pour euh, maanaam euh, seet wér yaram bi tey loo ñu mën a wax ci bés bi Khadim organisé. waaw loolu de sant ci yàlla ak euh, sant ko ci itam ndax soxla balaa nekk ñaar dafay fekk wér-gu-yaram am kon wér yaram lu am solo la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu wax lu xam ne la muy tekki mooy organisation bi loolu lay tekki yonent bi wax na ne. képp koo xam ne mbireem ni ñi xitteelut la bokkuloo ci ay ñoñam ñi nga xam ne mi ngi leen xaritoo léegi nag gannaaw wér yaram mooy première chose lenn bala lenn lu waay de soxla rek dafa fekk nga am wér yaram kon wér yaram la mooy jiitu ci lenn lu nekk kon nag ki taxaw faxe nit ñi ñëpp am wér yaram loolu taxawaay bu dëgër la ndax xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetu dimbalante la xeetu yërëmante la loolu nag alhamdulilah lu rey la ci yàlla lu rey la ci xeet wi te itam li muy tekki mooy mi ngay bàyyi xel ay bokkam mi ngay bàyyi xel population wu réewam yal na yàlla jàppale ko yal yàlla jàppale ko yal na yàlla suturaal jërë ngeen jëf jasaakumullaahu naa xayran jërëjëf